ñoo ngi lay nuyu bu baax a baax a baax di la naan yaa ngi en direct sur Lutte TV ñoo lay nuyu di la ziar. waaw di leen delloo ziar di nuyu waa Thiès gi yëpp di nuyu ak la làmb ji di nuyu promoteur bii di Siré Diakhaté moom mi organiser lii waaw di ko ci ñaanal aussi yàlla defal ko ci sutura ba mu am ci lu kawe njortam waa tey du ma ne sax lu waral teewaay parce que am naa ne laay kit buy bëre Modou Lo bu ñëwul war nga ko mën a ñëw teewal. waa ñaari teew nag laa fi am bi laay Pythagore di di booy bu yaru booy bu joxe cër moo tax ma teew ak euh, ki ñu tuddee drapeau bi di euh, kii bi nekk Tëngéej le monsieur le maire ki mu yebal kooku sama magu soxna la sama diyaay doom yi ñoom laa àndal sax waaw ñu ngi doog a ñëw nii. Laye Pythagore nag am combat capital tey ñu tëggal ko tey biir Thiès te ku ne Thiès ne lamb ku ne Thiès ne Modou Anta ku ne ne laay goote tey muy bëri biir dëkkam tey lay Pythagore ban stratégie de bëri la war a ànd tey euh, ban façon bëri la war a bëri ki nga xamante ni moo di laay goote nga xamante ne moo ko gën a féete xale. waaw mën naa ne wax ne combat xale la ak mag. laay euh, moo mag moom ak laay Pythagore mais nag xale nag booy bëri moom da ngay bëri expérience ngay bëri moom. xale bi nag am na fugg mais ci biir fuggam boobu ci nga koy nax ci ngay exploité loolu boo ko ci waree daan ko ci bëri xale la ak mag bëri xale moom naxante la rek. kon boo ko doon digal da ngay da nga koy digal mu naxanteeg moom. ah waaw xale moom booy bëreeg moom danga koy nax rek expérience ngay andi moom moo am fugg bi moo am doole ji moo am moo moo am euh, euh, fraîcheur bi yow mag bi nag daa daa am nooy bëreeg moom xel nga bëreeg moom. Mm-hmm. kon daal sa xel dal na ci laay bi ni ni mu waajal. waaw waaw comme ñu ko waajalee waajal nañ ko ci fànn yëpp xel dal na ci baax a baax. fan ngeen toll si le premier janvier bi. waaw comme waa ñun moom xam nga rek ñun teggiwuñu le 5 bi mu jàllee dañoo enchaîné kon une semaine la ñu noppalu. une semaine total def récupération totale def une semaine euh, euh, repos repos actif après li ci rek ñu enchaîné ko. kon Modou Lo daal mën nañ instant mu ngi ci mu ngi ci entraînement yi. waaw macha allah mi ngi ci kawam bu baax a baax. Père Palla boo amoon looy laaj euh, Père Ibou Diouf si le premier bi lan lay nekk. ah Ibou Diouf ni ma koy laaj mooy écrit Rock Énergie fan la toll. ci mbër yi nga xam ne ñoom la yor ak euh, saison bi ni mu déparé ndax baax na ci yéen yooyu rek laa koy laaj écrit bi daal état écrit bi. wala mu may ñu question boobu noonu ba combat bi passé ñu mën a waxtaan bi am na combat bu nekk si digg géew bi père diggante Yaro Baax ak Boy Jobaas mépp xeex Yaro Baax Boy Jobaas. Yaro Baax Boy loolu mooy troisième combat de la soirée père. mooy troisième combat de la soirée. ah combat yu fi jaar yëpp booy Jobaas. combat jaar yëpp combat yu gaaw la. ah bu ñu ko tegee ci yoon war na mën a gaaw. boo Jobaas numéro 2 moo fete càmmoñ moo yore ngembul xonq li père. kenn kaa ngi teg tànk càmmoñ kenn ki teg tànku ndeyjoor. yaroo baax. ah ah yaroo baax dóor na yaroo baax moo yore ngembul weex li. waaw yaroo baax li muy bëre teg na ko ci yoon. bëri bi teg na ko ci yoon bu ko defee appel gauche da a eh, jël na ko daw na jël ko daw na jël ko de jël na ko mu bañ jël na ko yaroo baax boo joobaas numéro 2 ko xañ ko boppam yaroo baax boo joobaas yaroo baax boo joobaas numéro 2 waaye ñu ngi nuyu say jàmbaar moom tamit mu ngi ci ligne bi mu ngi commenté say jàmbaar war na a ñëw teew eh, nuyu ko nuyu di ko ziar di nuyu El Hadj Touré gars ne si ligne bi di commentaire yëpp ñëw leen di nuyu bu baax di leen ziar waaw boo joobaas moo leen woon ginnaaw moo yore ngeen bu lu xonq Boy Diobass Boy Diobass ah baax mu ngi koy jéem a dajale ah, nag mooñ na ko de kii ngi door kii di dajale seen tiire na de mu ngi door kii di dajale da koy tegal ko seize mu ngi koy dajale tegal seize kal na ko dina ko daan daan na ko daan na ko daan na ko wala arbitre mais nag arbitre bi dafa sifflé dara amul de wala eh, ah, dafa mel ne arbitre bi arbitre dafa sifflé daa mel ni de. dafa mel ni arbitre bi dafa sifflé. arbitre woowaat na leen. arbitre sifflé waat na ñu ngay bëree. arbitre sifflé waat na. diggante Boy Diobass ak Yaro Baax. Yaro Baax moo leen woon ginnaaw Boy Diobass mooy njool mi. Ah, a dooraat na ko de bu dal jëlaat na ko jël na tàng ba. jëlaat na ko bi. wala na ko dóor ci na. Ah. yéen a ko ba ci kaw dóor ci bi nangu na. daan na ko jël bu rëy. waa gën a leer. yéene na ko ba ci kaw dóor si suuf. waa da koo ngemb. waaye ma ngi koy encouragé. da koo ngemb. loolay lamb fair play. waaw na. ma ngi koy encouragé. waaw yéene na ko dóor ba ci kaw. waaw kat kat appui ba leer na. ay ca noonu la demee combat bi vite fait vite fait bien fait vite fait bien fait bëre xale ak mag la waaye gannaaw ibu pour ñu bañ la lii bu gën a abusé si sa temps rek si euh, question bi la père pas la posé rek mooy Rock Énergie fan ngeen toll ak xale yi fan ngeen toll aussi ak waajtaay. waaw Rock Énergie moom ñu ngi parce que. boo xoolee saison bi ret ren benn benn benn weer la tëj mais ñun daanaka tëjuñu parce que ñun amoon nañ combat dès début saison bi ak Modou combat am le 5 soriwu woon ko moo tax moo tax tëju tëjuñu dañoo continuer di enchaîner di entraîner di préparer te xam nañ ci combat lañ nekk quoi. waaw mais Boy Niang ban stratégie de bëre tey ngeen war a adopté parce que mbër la boo xamante ni maanaam kenn mënu ko calculer père. <laughs> mais kuy dem kenn nag da wax sa ah. te te te te te te paala mi Pikine la nag. <laughs> di grand bu baax nag. Paala Diop suma xarit la ku baax la ñoo bokk groupe Les Sages vraiment di ku baax nag macha allah. moom moom mi sax moom mi sax. en 93 nekkandoo woon nañu équipe nationale. waaw. di def lutte olympique. man ak moom. mais grand lutte simple lan lay def wala lutte wala lutte traditionnelle lan lay def ci mbër. par rapport ak yéen ñi si jaar pratiquer façon bëri yooyu noonu. waaw man damay toujours xale bu ma dajee dama lay conseiller pour ngay def ngay dem bëri ji mbapat bëri simple. day day yokk sa bëree day tax nga gën a miinu géew da ngay dem daje koo xam ne mosoo koo xamoo nu muy bëree mosoo koo gis kooku da yokk xam-xam façon bëree bu ne nga fay dajal kon nag man li may xale yëpp. na nañuy dem di bëri mbapat parce que mbapat day day yokk sa xam-xam day yokk sax physique gu contact lu bëri la lay may quoi boo xoolee mbër fi nekk ay champion yu bëree bëri jaar nañ ci mbapat peut-être mbapat bu njëkk ba ni ma xewoon ak léegi bokkul mais boo xoolee ñoom Birahim Ndiaye ak ñoom Pala ñii ngay dégg ñoom Mansour Diop ñoom président Tafa Gueye ñoom ñëpp dañoo jaar ci mbapat koo fi déggoon mu nekk champion ñoom Yékini ñoom ñëpp dañoo jaar ci mbapat ba ci Modou Lo nee na dafa jaar ci mbapat tey tax na tey bokk na si si li ko propulsé ba mu yegg si fi ñoom Modou ñoom Modou ñoom Balla Gaye ñoom ñëpp jaar nañ ci mbapat peut mbapat yooyu na ak mbapat yi bokkul mais boo xoolee ñoom rek rek tamit ñoom mbapat yi ñuy def damay wax xale yi ñu di ko def waaw parce que day yokk sa xam-xam rek du la wàññi dara waaw Modou Lo père gars yi nag dañ ko gëj gis dafa laaxatu temps yi nii di di di waajal mais le premier janvier tey ñi ñi mën nañu xaar ne Modou Modou Modou andi galaaj parce que nee nañ ne galaaj yi combat bi passé stratégie la woon rek mais. boobu moom nañu xaar ba le premier janvier. <laughs> mais seen xel dal na daal si li ngeen waajee. sama xel da ciy dal à 100 pour cent Modou mosul ñoo entraîné wala mu am combat ma ci di ci am xel ñaar. mosul am am. mais Modou dafa taxawoon wax ne ne bëreeg Ama Balde moo gën a yomb ko bëreeg Boña pour yow bon booy ñaa day calculer ak yooyu noonu quoi waaw day day damyee wuute na ak Ama tuuti quoi waaw am na. bu damyee ngeen damyee. waaw loolu kay <laughs> nañ xaar ba boobu rek ah. nee naa la Pala gi fii Pikine la dëkk. <laughs> Pala <laughs> xam nga xam nga euh, mbër moom boo lu mu màgget màgget day fiir ah nee na bu waxee dafa am lu may yóbbu ah kon na bañ wax. ah man li ma koy dénk. mooy nañu ñëw ci jàmm rek ak ci fair play ak discipline. lool sax ku leen ci woo fekk leen ci. ñu bëre ci jàmm. booy ña daan ci jàmm. dégg nga lim la ci loolu mu njëkk sax. fair play bi boo xoolee ñaari côté yëpp la. côté booy ñaa amuñu benn amuñu benn problème même ñun aussi kenn mësuñu gis ñu yàq làmb ñoom it kenn mësu leen ñu gis yàq làmb kon nag làmb ji moom fair play mais nag ah yoon du bàyyi du bàyyi yoonam de. ndax du bàyyi yoonam. déedéet mu ah. waa Pikine damaa xam seen secret. waa Pikine da nga xam seen secret. 5 le moment. 5 0 waaw. Ah, waa Pikine dañ ne leen bii mooy dernière boo ci boolee kële sax booy bi dëkk Thiès boobu nekkagul mooy ah, kii ki ki dëkk Thiès <laughs> kii ñaa Cheikh Niang. <laughs> day nekk 6. dañoo dañoo bëgg dañoo dañoo bëgg mu mat semaine rek dañoo bëgg mu mat semaine rek. waaw semaine waaw. ñun dañuy dañuy jëli li ñu moom. Ah. waaw. xaw ma surtout Samba Xawaan xaw ma nu ñu koy waxee. fi ñu jaar fi ñu jaar ak ñooñu ñooñu ci ginnaaw ñooñu ñëpp. Ah. foofu la ñuy jaar ak moom. bu sa xel dal na de. ah bàyyi man sama xel mosut a ñàkk dal parce que li ñuy liggéey la dañoo wóolu suñu bopp. ngeen wóolu seen entraînement. waaw lépp la ñu wóolu ci fànn. mbër bi ngeen di bëreel bukki bukki timis la de. waaw ñun booy wax jee fi nekk rek. Ah. ñoo leen gën a nekk baati géew de <laughs> mais gannaaw Ibou eh, dafa mel ni dafa mel ni Modou yaa ko jox ay ngelaw ji si suuf quoi. ah non mais ah ci laa bokk comme jaar naa jaar naa ci sport lu mu xam lu mu lu mu néew néew dinaa ko ci def. am booy bi wax na de booy bi. ñeneen aussi ñoom Pape ak ñoom Juga entraîneur dafa nekk yëpp ñu ngi def seen contribution ah ci ñëpp nag. Ah. Hmm. loo koy wax moom booy ñaa lay seetaan. ah ñaa sama fils la moom moom sama gaañ la quoi li ma koy waxan mooy na ñëw bëre rek mu def numéro yi rek. waaw. ñoom père Dégol ñëw ñoom père Mansour Mbaye ñoom père Mansour ñëw ñoom père Mansour Diop. di nuyu sama père Mansour boobu nga sama sama gaayen la. Dégol aussi ak soxnaam ñoom ñëpp maa ngi leen di nuyu. bu baax a baax di leen wax ah mais la espoir la rek. na ñëw ma def noonu waa Pikine rek. mu jeex moom mu bokk mu bokk na bokk ci lim bi. rendez premier kon looy tàggatoo yaa ngi en direct sur TV looy tàggatoo. rendez-vous premier. di ñaanal sama waa ji laay Pythagore bu am ndam. waaw mu yàlla may ko ndam lu sedd guy. maa ngi koy ñaan bu baax a baax waa rendez-vous le premier yàlla yóbbuñ ci jàmm may ñu ndam këla euh, kë moonu ñu ngi naan dañoo war a jox kii yu Pikine bi Pape Sarr de Pape Sarr de na bu ngeen daanaatee moom ñu jox leen mairie Pikine a ah, yoon la de ah bu ñu ko joxul sax ñu jox ñu benn tali comme que bari na ay tali ay rue du Zac bu bees ak bu mag ak ñu jox ñu benn waaw waaw benn ci tali bi waaw benn ci tali bi <laughs> force waa Pikine koy def